n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique totale Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daal di fay def alimentation daal di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp loo soxla boutique Total foofu de dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow buti kër xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ne décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci tuubaa am décor am salle VIP bu baax

nekk dans la ville sainte de Touba. yaa Allah yaa Allah loo ci ñaan may loo ci jéggalu mu baal ci la ne yi ci la xewal yi yokkoo shahru ya karim ramadan ya habib ya yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelaw waay bu ci mooy yàlla tuubal jéggalul dellul ci yàlla lu mun ci lu baax ci tay mengook safaan ba nanga ko baay sama gi ndax nga sañ koo wax xam nga li olof njaay naan tere mu te bàyyil mu gis eh. ndax sëy bi bi mu siy dugg dañ ko koo tere woon surtout maa man nag ah. ndax jigéen da ngay rëy bët waaw yow sa jëkkër ji nga dugg xamante ne mënalu la dara du dàll du yére man nag maa téye sama loxo joxatuma la dara lekkuñu naanuñu waaye li ñu am ñu koy sante yàlla bu baax waa loolu weñ yi sax moom lañuy ñuy man ñëwoo si man wax ma ko de dégg naa da ngay toog deux jours doo taal añ waaye nag man ñii ñëw di ma wax seeni baax baax ma leen kay fajal bari na waaw bërki démb dong laa yónni sama géwél bi si xadimaar mu jox ko cent mille moo yey kat moo yey ci ab loxoom ndax yow mii dangaa këngas li dégg nga tere tere mu ca baal ma gis fi ne moom yaakaar naa ne gis nga dégg nga buy dem du la fi ba yow bett nga ma de waaye bett nga sama yaay ja nekk àllaaxira ah ginnaaw yaayoo sa rakk muy xiif ak mar nga mën koo faj te mënoo ko fajoo ko waxuma laa nag ña xam ne bokkuñoo ak man dara ñooñu dañ ma wax seeni soxla ma faj ko Samba Koor xam na si dara mhm. damay dem di baatara nu ma neexee namu ma dara man ñëw leen si benn côté leena man a gii yow mii kat doo nga may fàttali ah. li ma lay wax di la ko dolli saa su nekk bu ñu gisee man ak yow rek mooy wextaan dafa sëyu te jeeg buy sëy ci biir kër mënul wax a wax mukk ba am ndam day jëf rek ba am ndam saa buñ la lay dàndoore nga yaakaar ni yaa am ndam di saaga nit ñi di def lu neex mu teelaa togg wala mu teelaa jox nit ñu lekk su boobaa na nga xam ni mbërum seytaane nga su boo war nga musluwaat ci seytaane te dellusiwaat ci yàlla mi la bind te jubalaat bu baax te muslu ci seytaane loolu daal laa lay dolli. sàmm koor kumba mii kat tey yaay na ma. Mm-hmm. gone la waaye tey dëgg ci jël na ko de. <laughs> li mu wax nii dëgg ko wér péng la sama rakk la de waaye tey jii yaay na ma. dangay jooy fii nag nga toog lépp lu ma am si lu baax dinaa la ko indi dama lay digal nga sëy ba keroog ngay faatu am saxul ñàkk saxul waaye sama yaay doo ko mus a fàttaliku benn yoon di am lu la metti si bat dinaa la jàppale si biir jàppale la si biti kumba dawloo nga sama yaram yéen bokk seen yaay